dafa déposé woon conseil constitutionnel def recours conseil constitutionnel ñaari article la ko génnal benn bi mooy cinquante 52 bi ne munoo def munoo mënuñu laal suñu décision beneen article mooy article 12 bi mooy conseil constitutionnel procédure bi soo fu ñëwee du en matière contradictoire maanaam doo ñëw di wax ñoom ñuy dindeeg et cetera loolu la rapporté waat indi ko en 2012 muy Youssou Ndour moomu euh, nga xam ne moo mooy patron foofu ak euh, Kéba Kend ak Moustapha Sarr daf leen dàq ñoom it ci article 52 ak article 12. donc décision am jeex na jël fu ko jëlee ba pare ci élection jeex na benn ñaar li jëm ci mbirum euh, lu ñu daan président dafiy toog le 2 diggante le 2 ak ba ñuy def élection yi loolu tamit conseil constitutionnel tontu na fa pare bu leen fàtte ne article 31 bi ba bañ ko yóbbee di ko modifier yemuñu rek modifier article 31 dañ koy yokk beneen article 2 bu ne président de la république bi fi nekk. dafay continuer ba ba élection bi jeex ba ba ba ku ko remplacer ñëw bu leen fàtte loolu. loolu conseil constitutionnel dàq na ko parce que conseil constitutionnel ci décision dafa ne article boobu ak article bu njëkk bi yépp respecté wuñu constitution. parce que nee na très clairement que ne kenn mënul wàññ walla yokk mandat président de la république au gré des circonstances politiques. quels que soient les objectifs poursuivis. donc moom la Macky Sall waxoon sax euh, ci référendum 2016 bi. voilà donc loolu c'est déjà réglé maanaam tey lu ñuy bëgg a yóbbu foofu c'est réglé taxawaay bu ñu bëgg a am lépp conseil constitutionnel wax na su pare li ñu doon xaar ci président Macky Sall mooy bañ ko waxee mu jël date mu jël date méngale ko ak lu luwaa bi wax mais tey jël na taawam pour nekk ci situation boo xamante ne ne. trois amatul loi amatul parce que damay naan dialogue bi transition la entre la décision du conseil constitutionnel ak le non respect de la décision du conseil constitutionnel lu mu nekkee transition mooy conseil constitutionnel nee na la mënoo yokk sa mandat jëlal date nga dem élection nga ñëw mettre ko devant le fait accompli mooy nga jël sa temps ne da ngay dialogue da ngay waxtaan ba moment bi nga xamante ne ne fourchette légale bi nan nga ko dépassé parce que tey kenn mënatul def élection le 3 nga ne ko nag mbir maa ngi nii fii la ñu toll léegi nag xoolal loo mën a décider loolu c'est une procédure boo xamante ne ne président Macky Sall daf ko jël sciemment pour tout simplement retarder les choses et nous mettre dans une situation extrêmement léegi Thierno Bocoum en termes clairs Macky Sall euh, proposition yoo xamante ni defal nañ ko ko euh, ci dialogue bi euh, bu ñu demee ci conseil constitutionnel lan lay joxe direct clairement non d'abord premièrement premièrement dialogue bi lu ñu ci wax ci ay date boo ko bëggee première 2 euh, juin euh, premier tour. waa 2 juin boobu soo ko bëggee matérialiser d'abord il faut nga dem assemblée nationale su dee procédure boobu ngay jël. parce que ni tax ngay war a dem assemblée nationale sooy jël décret décret bi dafay viser la constitution te constitution moom moo wax période bi nga xamante ne ne dañu war a def élection période boobu ci article 31 bi la nekk maanaam soo demee assemblée nationale pour mu simple. article 31 boobu il faut ñu changé ko pour décret bu ñuy jël mu méngoo ak article 31 bi soo changé article 31 boobu su ñu saisiré conseil constitutionnel dans son contrôle a priori conseil constitutionnel daf koy dàq du ko nangu te date bi conseil constitutionnel mënu ko jël parce que président de la république lañ ko jébbal article L 63 bu bu bu code président sax wax na ko d'ailleurs article L 63 bu code électoral moo ko ne yow yaa ko war a jël donc du conseil constitutionnel moo ko jël mën maintenant li muy tekk lii yëpp mooy tey mën nañ dem ba conseil constitutionnel ci boppam mu jël date orienté affaires yi jël ay décision parce que président neen dina ko saisir président mun na ko saisir pour avis ci article 92 bi lañ ko prévoir mais conseil constitutionnel su boobaa mën na jël ay décision mais loolu tamit beneen forfaiture lay doon parce que conseil constitutionnel dina dem ba jël euh, prérogative yoo xam ne ne amul compétence boobu amul compétence bi loolu lu muy tekk parce que conseil constitutionnel xam nga man nag damaa bokk si ñoo xam ne damaa yàgg di bind si conseil constitutionnel di wax si conseil constitutionnel donc du du guléet mais conseil constitutionnel même décision bii profité na ci jël ay prérogatives loo xamante ne amul amul fenn fu mu ko teg parce que nee na moom dafa am euh, possibilité nekk am de devoir de régulation ba tax mu war a gérer la continuité le fonctionnement régulier des institutions loolu amul fenn fu ñu ko bind ci loi bi loolu président lañ ko jagleel ci article 42 bi moom moo war a xool le fonctionnement régulier des institutions mais malheureusement tey président doole bu mu waroon am constitution jox ko assemblée nationale doole bu ñu waroon am constitution jox leen ko ñu war a sut fuuf doole conseil constitutionnel parce que assemblée nationale c'est le pouvoir constituant le pouvoir constituant est souverain tey ñoom ñëpp nërmeel nañu seen pouvoir ba tey ñu nar a nekk ci pouvoiru ay juge lu ñuy wax presque gouvernement des juges parce que ñun ñoo xamante ne ne président moo leen nommé ñooñu ñoo nar a jël décision yoo xam ne daanaka sooy xool teguñu ko fenn. Mhm. mais li yëpp lu ko indi mooy président de la république moo xëy un bon jour mu ne man damay arrêter le processus électoral te ñëpp xam nañ le processus électoral est calibré. lépp loo si war a def dafa am délai yoo ko war a def. léegi Thierno Bocoum euh, loolu yëpp c'est des constats yoo xamante ni gis nañ ko euh, sentir nañ ko et puis euh, finalement am na est-ce que tey jii est-ce que du importance dialogue bi ñu doon wax. peut-être ñu xool benn compromis comme ni ko Ndiaga Sylla expert électoral waxee tey ci livraison Vox Populi nee na il faut ñu amoon compromis pour ñu éviter imbro imbroglio bi ngay wax. non xam nga compromis bi fan la doon amee très simplement je vais être gis nga dafa am loi yoo xamante ne dañ ko il faut nga nga tënku si pour mën a def ay élection loi yooyu dafa am loi boo xam ne loi organique la bu code électoral am loi boo xamante ne loi constitutionnelle la muy article 31 bu ma la wax sànq président de la république bañ ko waxee ne ko da nga war a fixer date moom lu mu waroon gaaw a def mooy fexe rapidement mu def ay délais yu ndaw par rapport ak campagne beeg yooyu te loolu loi organique loolu pour changé ko yomb na parce que assemblée nationale ngay dem procédure d'urgence ñu changé ko très rapidement loolu ñëpp si doon d'accord parce que ñëpp ay xaar élection ñëpp bëgg élection am donc loolu la waroon def nit ñi ne ko d'accord nañu mu dem ñu changé ko nga mun a respecter la fourchette de l'article 31 mais loolu foo ko deful évidemment da ngay dem violer ji article boo xam ne dafa am intangibilité te article bu am intangibilité mënoo ko violer c'est pas possible d'ailleurs conseil constitutionnel joxe na décision bi euh, y a pas longtemps ne loolu article 31 dama ko si boole parce que article 27 bi sax lañu doon xalaat parce que mooy mandat bi mais léegi nee na même période élection bi parce que effectivement période élection bi dafa am incidence ci mandat bi moo tax mu boole ko ci intangibilité bi donc loolu leer na léegi nag dialogue bi ma ñëw ci dialogue bi rek oh. dialogue bi li ñu war a xam mooy que ne dialogue bi dafa am dissensus avant même ñuy wuti consensus consensus mënu si woon am ni tax c'est très simple yi ñëpp xam nañ lu ñu bëgg wax nañ ko fépp ñëpp dégg ko. justement foofu noonu ñi nga xamante ne ñoo di des dix-neuf candidats yi conseil constitutionnel validé est-ce que jotut itam euh, ci euh, situation bi ñu nekk nii ñoom ñu togg ak njiitu réew mi. waaw dix-neuf candidats dix-sept yooyu ngay wax. mais ñoo waaw c'est vrai parce que am na doy nekkoon ci dialogue ba. waaw mais mais ñooñu mais ñoom lu ñu lu ñu d'accord ñoom koy d'accord nañ pour élection am maanaam tey yow soo doon wut consensus jarul woon nga ne damay boole jiw ma sàmba ma xëri te ñoom ñëpp bokkutuñu ci procédure bi bokkutuñu ci processus électoral bi tey lan moo yan yan bi recours yu am yan lañu lañ accepté ñi ñu accepté pourquoi décret bi ñu daal conseil conseil dàq ko parce que décret bi. ñoo xamante ne ñooy candidat ñu confirmer leen à travers la décision du conseil constitutionnel ñooñu ñoo dem def recours ça ko dire que ñooñu ñoo am intérêt à agir fii ñu toll ci processus électoral bi foo bëggee changer dara wala waxtaan ak dara ñu ngay woo et ñooñu rek ngay woo parce que ñooñu la concerne président Macky Sall defu loolu président Macky Sall dafa dem amate le Sénégal si loo xamante ne ne fu mu toll nii fii ñu toll ci processus bi ñu bëggoon bokk bëggoon nañu bokk yàlla def na ne bokkuñu comme nu mu amee woon si yeneen année ni ay année yi 2019 Khalifa Sall Karim Wade bokkuñu woon donc du fi guléet ñeneen ñu doon bëgg a def campagne et cetera loolu yëpp pare na jaloo yeeg yooyu yëpp am na ba pare li fi def mooy dem élection te ba ba ngaa ngay dem élection conseil constitutionnel daf leen ne ñii ñooy dem élection donc problème su amee ñoom ngay toogal. waaye mais gars yi dañoo ne na nañu jàpp 19 yi xoolaat euh, dossier ñeneen ña. ñoom Karim Wade par exemple. am na ñeneen ñi commencé yëglu sax euh, du du euh, seen bopp euh, front des candidats forclos. waaw mais lool moo tax ma ne la loolu le conseil constitutionnel réglé ba pare y' a une jurisprudence Yoro gis nga en deux mille dix neuf le deux mille douze le conseil constitutionnel même ci décision bi dafa ne compte de la jurisprudence Yoro Fall jurisprudence Yoro Fall deux mille sept la Yoro dafa defoon candidature indépendante mu dugal ay parrainage ay signature dix mille la waroon def. ñu ne ko huit mille et quelques moo si valable mu dem def def def recours si conseil constitutionnel def ko ne d' abord benn man sama décision kenn du ko xoolaat amul recours benn ñaar man sama procédure amul contradiction maanaam amul nga ñëw teg di wax ak di kii ak yooyu jeex na donc loolu la appliqué Youssou Ndour loolu la appliqué Keba Kane loolu la appliqué Moustapha Sarr loolu mu ngi fi conseil constitutionnel wedd boppam si loolu donc xanaa kay kii continue li ma bëgg wax rek mooy li ñu bëgg a def ñoom parce que je pense que dañu bëgg a dugal nit ñi ci situation de non droit donc lu ñu bëgg a def ñoom peut-être mooy fu mu toll nii pexe amul léegi nag nañu def lu ñu neex xanaa loolu lañu bëgg a def. kii di njiitu njiitu Africa Jom Center ah wax na avertir nee na bu ñu deful attention dina am problème diggante conseil constitutionnel ak présidence de la république. waaw xam nga loolu tamit. Euh, yàgg nañ ko chercher ñoom depuis longtemps conflit bu am ci institution yi mooy crise institutionnelle fii laa fi njëkk wax bu affaire njëkku ma ko wax mais en tout bokk naa ci ñu ko wax mais ba may juum ba ma koy wax ñu bëri waxuñu ko woon ne dañu bëgg a évoquer l' article 52 parce que président de la république euh, am pour fonctionnement réguler des institutions am na condition yoo xam ne arrogé wu boppam euh, à l' article 52 loolu ñoom ci boppam sax ñu ngi koy brandir depuis boobu je pense loolu c' je pense que ñun jugee guñu maanaam jugee guñu ci ay malheureusement ci ay problèmes yu ñu président Macky Sall moom sala mooy cap mooy moo coupable dugal bu ñu dugal bien que man j'en veux encore au conseil constitutionnel parce que mënoo wax ay délais dans les meilleurs délais alors que y' a pas de meilleurs délais en ce qui concerne la durée du mandat y' a des délais impartis. mais tey yan ban mooy yoonu ñu war a jël pour éviter loolu yëpp. mais yoon bu ñu a jël mooy yoon boo xamante ne dañ ko demander président la mooy yoonu respecté yoon. mais mais déjà mais déjà déjà nee nga euh, mënatuñu tenir euh, respecté délai boobu. fa lan mooy yoon wi. no mais George loolu laa la wax damal ne président Macky Sall tey dafa mel nii rek tey nga dem boutique ba jënd mbir mi euh, boutiquier bi war la delloo weccet mu ne la kaañ dialogué ci weccet bi loolu moo am c'est-à-dire que moom dañ ko jox ay prérogatives encadré ko tey jii tali bii ma nekk nii. su doon président mooy jàll léegi léegi léegi damay gaaw wàcc tali bi bàyyi ko mu jàll. loolu ay prérogatives yi ñu ko may la en même temps dafa am ay obligation obligation yooyu la wàcc maanaam lu mu waree respecter constitution ñu teg ko am fu ñu ko teg cëral ko loolu la ñàkk cëralee constitution ba tax mu def lii mu def. léegi loo léegi léegi loi euh, d'amnistie. non man pour man président Macky Sall lu mu waroon def lu mu war a def encore une fois. mooy lu mu gën a gaawee mu def élection yi gén nu mu fi su génnee délai yi na ko def lu mu gën a gaawee très rapidement ban mois parce ay waxu ay ramadan ak yooyu ban mois ban mois wa xam nga non mois bii la ko waroon def si mois bi avant mandat di jeex nga nekkatuñ ci situation boobu xam nga ko c'est presque euh, devenu yow sa wàllu bopp sax wax nga ko ne nga mënatuñu respecter délai yi waaw mais lu ma la wax suñu ah. wàccee ko ñu wàcc complètement moom mu tey ko ñu wàcc ko mais xanaa au moins dina sàmm mbirum màndaam bañ si toog cest di dire que moom na fexe. mu bañ a assurer transition au moins avant avant le 2 au moins nit ñi nit ñi xam na ne kii organiser na ko maintenant muy xaar ku ko remplacer mu dem loolu kay yomb na mais soo bëggee toog di jël sa temps naan weeru koor dugg na lee dugg na mais ba ñu teg intangibilité si dure bi da nga foog ne jëluñu woon en compte ne weeru dina ñëw gàmmu dina ñëw màggal dina ñëw leneen dina ñëw. fii mais loolu daf koy transcender. en quelques secondes en quelques secondes au Mali fii en 2013 Mali bii. bañ ci weeru koor lañ ko def Ibrahima Boubacar Kama Kayta si weeru koor campagne weeru koor lañ ko fale mais loolu dugguleet ci dëkk fii dëkk yi weeru koor bu ngi fi def campagne. donc soo bëggee teg weeru koor suba nga ne gàmmu ginnaaw suba nga ne nga ne màggal mais kañ ngay def élection te lu élection du lu bon. en quelques secondes euh, Thierno loi d'amnistie bi nga xamante ne tey danañ ko soumettre euh, conseil des ministres laataa ñu koy jébal li nga xamante ne ñoo di waa assemblée nationale ànd nga ceeb déet. ànduma si la loi loi d'amnistie moom boo xamante ne gis nga Georges nga ñëw si kër télé ba toj ñu ne kan moo toj télé ba. ñu ne am na caméra de surveillance nañu xool lañu ñu gëstu xool lan la yow nga ne déedéet nañu baalante suñu biir xanaa yow yaa toj tele bi balaa ngay mën a wax ay loi d'amnistie xanaa nga xam luy dëgg nga xam fu dëkk bi dëgg bi féetee mais ay nit ay xale rey nañ leen fi ay yëfu jàmbur taal nañ ko fi université taal nañ ko fi ay nit def nañ leen loo xam ne waruñu leen ko woon def. jërëjëf mais dinañ xam dëgg. avant ngay wax amnistie. jërëjëf Thierno Bocoum euh, nekkoon euh, député njiital euh, mouvement Agir jërëjëf Mouhamed Alioune Ba nuyu ak ziar soxna Naata Mbaye ak ñemu àndal ci TFM ñu yendook jàmm. merci beaucoup Georges Déthié Diop Mouhamed Alimou Ba ak seen gan Thierno Bocoum jiite mouvement